dal leen ak jàmm mbokku internet yi tey jilee Tactic TV ñëwaat na ba tey ci mbiruma Dieyna bi ak Diop ngir indi leen dëgg-dëgg li nga xamante ne moom moo ci xew ci ay leeral daañu leen xamal dëgg bi yépp ci lu jëm ci wàllu accouchement bu Dieyna bi ak ngénte li ñépp di tudd ba nangu gi nga xamante ne kii lay di Diop Iseg nangu na ne moom mooy bàyyi doom ji vidéo bii ngeen seetaan asaare nañu ko ci réseaux sociaux yépp ba ñëpp jàpp ne lii mooy li nga xamante ne moom moo am ñëpp jàpp ne xale Kolda bi di na Ba Baldé moom mi nga xamante moom moo tuumaaloon patron ISEG bile di Mamadou Diop wax ne moo ko ëmbal nekk bàyyi doom ji mu ëmb ñu bëri foog ne kooku lee di Dieynaba Balde jamono ji dafa nekk ci gundaandaat ak olala di dund mbégte ci juddub doomam jile waaye nag loolu yëpp dara amu ci bile vidéo bu ñu tasaaree ñëpp jàpp ne Dieynaba Balde dafa nekkoon ci ab ngénte di fësal mbégteem ci juddub doomam ju góor ji waaye du lu am loolu yëpp ak rus ak sëlëm dong la ndaxte bile vidéo sax benn vidéo bu yàgg la vidéo bi bi bi mu koy amal boobu coowalul Jóob ISEG bi sax juddoogul li am ci mbir mi dëgg-dëgg nag mooy kii lay di Dieynaba Baldé dëgg-dëgg sax am na doom bu góor te itam kii lay di Jóob ISEG mi nga xamante ne yoon da ko teg loxo ngir pédophilie moom itam nangu na dëgg-dëgg ne moom mooy bàyyu doomub ba balde ji moom mi nga xamante ne ca njëlbeen dafa bañoon ba sax di wax ne moom ak Dieynaba Baldé sequñu dara mujj na nangu ne mooy bàyyub xale bi waaye nag li ñuy wax ci mbir mi yépp te amut dafa bari leneen lu ñuy wax ci demewul noonu mooy lii de di xibaar bu tukkee tudd gi ñu tudd uh, doomu na Dieynaba Balde giile lu bari ci xibaar yi di fësal ne uh, doom ji mu tuddee seydinaa Seydina Seydina Fall Bougazelli la ko tuddee moom mi nekkoon fii ab député bu APR yoon tegoon ko fi loxo ci mbirum faux billet te itam mu nekk jamono jii nii dëkkandoo Diop Iseg ginnaaw gi nga xamante ne ñoom ñaar ñoo bokk fa ñu leen denc waaye loolu yëpp amul ki nga xamante ne moom la Diop Iseg tuddee doomam ju góor ji mooy loxob ndeyjooram di àndandoom bu sës ci moom rek lii mooy li nga xamante ne dëgg-dëgg moom moo am ci mbir mi te ci waxtu wi nga xamante ne ñu ngi leen di defal bii vidéo ngir indil leen ci ay leeral kii di ba Balde ak doomam sax ña nga ca l'hôpital ci benn clinique fii ci Ndakaaru Njaay donte sax xam nañu clinique bi ban clinique la ñu leen waxagum turam ngir ay mesures de sécurité ñu ngi di fii ak yéen ci xibaar yu jëm ci wàllum Dieynaba Balde ak Diop Iseg daan ci ñëwaat ak yéen ngir indil leen ci yeneen leeral ci lu yàggul dara jërë ngeen jëf